bàyyi ko xool lii rek xam ne sëñ Saliou liggéey na ci Daaru Salaam loo xam ne ak mbodd loo xam ne kenn mënu ko fay dañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko suñ kanam mu yàgg fi loolu ànd ak wér. kon mën nañoo jàpp ni lii war naa mën a sax fii ci mbodd ba tax na euh, keneen dootuñu mën a nangul Serigne Saliou Likhlass ñoo ko gën a bëgg sax waa Touba. déedéet kenn duñ ko nangul dañ ko fi wutal kër ak lépp mu ñëw dëkk ak ñun Touba sax du ko nangu ci ñun Serigne Saliou kay ci kaw ci kanam ci lu baax rek. mbokk taalibe yi maa ngi leen ziar ngeen jox seen wàccuwaay baax a baax. waaw sëñ Saaliw bokk yi xale yi ñoo ko bëgg dafa jël xale yi rek li ko si kii waxoo woon rek jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom mag ñi ma sëñ Saaliw def waaw kontaan ci moom nag parce que Serigne Touba ñoo kontaan ci moom trop kontaan nañ vraiment bis bi euh, mu koy xaral def bi mooy deuxième édition fii ci Géejawaay euh, yéen da ngeen am taxawaay pour bañ mu jëleeti fi bis bi di ko yóbbu feneen parce que dafa mel ni euh, bii cette fois ci moom dafa dafa dafa dafa la période de mobilisation dañoo gis baas bi déjà dara xewagul mais dafa fees. waaw dëgg neexul waaw incha allahu rabbi ñi ñaan mooy bu ko bu ko yóbbu fenn nañ ko bàyyi Géejawaay waaw parce que. nangu nañ sëñ daam sëñ Touba rek lañ gis ci moom barki borom Touba ñi ñaan daal dañ ko fekki ay déwéni déwén rek lu ñu mën ren bu déwénee yàlla ëpp jërë ngeen jëf kontaan nañ ah, soxna Ndeye jaay gis na ba léegi yaa ngi waaw feeñaan na moom fépp fu nit ñi di dem rek sëñ Saliou fa muy mag muy xale ñëpp fu fu fu dem rek fekk fa sëñ Saliou mu jël xasida yi def ko si xale yi macha allah yàlla ko yàlla fal cat yàlla nañ ko fekkee ci yonent bu tedd bi ndax defoon naa man nëgën tey duma fekk may toog di wax ci waxi àddina dara kon bu ma toogee di sant yàlla ba fekk bis bu mel nii bisu sëriñ tuubaa su ma ci waxul duma ko ndax ay ñaan yàlla yu jullit yi rek ma fi bàyyi ba heure bi ak waa koñ bi koñ bi ku fi yeewoo rek maa ngi lay delloo njëkkal di la yokk ñaanal leen gudd fan ko ànd ak wér ñu fekkee te tal fekkee ñeere ñeen xale yu ndaw yii yal nañu ko fekkee te tal ko liggéeyu Serigne Touba bi nag ñun dañ cee judd mhm. màgg ci ba toll nii mhm. Serigne Saliou dafa ñu cee fekk si mhm. waaye dafa ñu cee gën a dëgëral am naa bis ñett ci ndakaaru gi waaye dama absenté yépp am naa ko kees suba te sama yaram neexul waaye bii dafa maa jaral bis yëpp ma toog xaar ko dugal ci sama doom ji nga xam ne mooy sama taaw